dalal édition bu njëkk di conférence régionale des recteurs des établissements membres de l'AUF ci Afrique sowu jant ci nekk rek bàyyi ko ma ngir ñëw dooleel ab partenariat bu fort ñu ci doon rek càmbar ay pong yu soxal réew yu nekk ci sous-région bu ñu sukkandikoo ci professeur Fadel Niang bi leen daje nag dafa am solo rek ngir dooleel lii di diplomatie scientifique francophone fii ci Afrique Euh, recteurs yooyu nekk ci Afrique sowu jant dañ leen a dajale fii te ñoom ñëpp di làkk tubaab ñu dajale leen pour que ñu mën a am kuréel boo xam ni ci biir AUF dinañ mën a toog di weccante xalaat pour xool nu ñuy mën a doxalee suñu université yi ba jafe-jafe yi ñu ciy gis ñu bañ ko am ku am solution ci benn dëkk ñu mën ko partager pour que beneen dëkk bi mën ko jëriñoo loolu moom lu lu jara xalaat bu rafet bi la jotaay nag dafa dajale lu ëpp junni ci ay recteur ñu jugee ci fukk benn dëkk yu nekk ci Afrique sowu jant seen teewaay nag day firndeel lii di diversité linguistique bu Afrique la leen gën a soxal nag mooy rek wàllum employabilité ci ndaw yi ñu koy jàngat ba ci sax indi ay jéego. waaw yeneen défi yi bari na euh, bi bi gën a am solo ndaxte euh, axe stratégique AIF yi juróom-benn la mais bi ci gën a am solo pour ñun mooy bi nga xam ne day wax affaire employabilité ak entrepreneuriat mooy xale bi nan lañ koy jàngalee ba mu am compétence te soo amee compétence su génnee entreprise bi soxla ko donc mu nekk ñaar yoo xam ne day daje moom la ñuy wax adéquation formation emploi dajee rek eh, ñëpp ñaan ñëpp kontaan ki génn ba ki jàng ba génn am liggéey ki nga xam ne day wut ku ko liggéeyal am ko xarañ ko ko mën a liggéeyal donc loolu ay yëpp da cee taxaw bu baax fi ñu toll nii waaw. ndaje mi nag ñi nar ko wëyal flekk ñaari fànn ñoom ñi seen xel màcc ci wàll wi bàyyeekoo ci yenn dëkk yu nekk ci Afrique sow jant nar rek lëlu nar a indi ay jéego ci lu mën a dooleel wàllum solidarité inclusif te loolee nag day rek ñoŋal réseau universitaire bu njëkk ci àdduna walngal këpp